naagu ceeb a ngi nii de ah nag bi baax na de eh si kamay naam naak le naak noo mën a wax ci nag bi tane na ah ah ah tay ñoo ngeen tay de soutenir TV TV ah ah Hmm. sant ah. iya, iya, ah. yàlla ya, ya, ya. eh jola eh. ah TV Pape Malick ñoom laay ñoom ñoom góor a waat ay yow sama sama yaay yaa yoo sonn si man trop yàlla xam na loolu loo mën a wax ci nag bi waaw nag bi moom baax na moom baax na waaw di sant tamit ñoom Koli mhm. waaw ñoom Diop mhm. gars yi aw ma seen fay yàlla xam na loolu mhm. waaw ah loo mun a wax gars yi ñu ngi commenté ne ñoo ceeb instant yi nii waru ñoo ñëwati ci mbapat loo ci mën a wax non ñun ay xale lañ dañuy jàng rek di Ah. gars yi nee na da ngaa léegi daal waratoo ñëw mbapat ndax da ngaa ubbi booy yi quoi ngeen may booy yi comme ça ñu mun a am dara ngeen waajal saison bi loo ci mun a wax bu baax a baax. non ñun contact la ñu la ñu moo tax ñuy ñëw. Hmm. yàlla xam nga loolu. nekkul nim nag bi moo tax ngeen ñëw. ñun kay nag moom mooy ah. ñu sant yàlla daal. yéen a ngi sant yàlla bu baax. <laughs> jóg lay ko taate de. ok merci waay. ok ñoo fa jaajëf. déet bu xeex nag alaaji eh, bul xeex ak nit ki de. Eh, yow dinaa rasonal ko njool man nag dama man ci man laay njëkkee quoi yéeg nga sama ceeb waaw yéegaguma ko moom looy waxee waaw nag ah waaw yéegaguma ko laa wax waaw ah, maa ngi ceetal lo 13 décembre fii laa dëkk nag bul yaakaar ne Mbour laa dëkk nag ah waaw man sax su nga fekk ma joofe nga naan Mbour laay def man dëkkuma Mbour fii laa dëkk tey gars yi ne nañ da daw ñëw nga Palma ngay keroog yàlla fekk <laughs> la daw loo tey. non kii ñëw na. Ah. Ah. waaw yaxandoo bi na. waaw nga commentaire yi. gars yi ne nañ waratoo leen ñëw ngeen bàyyil booy ñu. ñu ah, ñu seen biir. mais wut ba ci. ah géej gaa ngi ne amul xale ak ndaw ñëppay rek. lambaatu la ñu indi si say mool nag ay géej faa ngi amul xale ak mag. moom ñuy wut dañuy wut rek ba ñuy dee rek. wut na mm. rek gain. Mm. amul benn lu mu wax d'accord nga ci nee na sport la ko jàppee nekkul ne pour mise bi moo tax muy ñëw. kan la eh, kii ceeb. bon na ma ko may. ah, ah. na ma ko may. ah <laughs> ndax du jël. mais nag loo mën a wax ci solidarité bi nga xamante ne tey jii nag. bu leen neexoon ngeen toog mais tey def ngeen te jàppale ki nga xamante ne nitu làmb la waa Garidi TV. waaw waa ji moom waa baax la moom amul benn problème. Mhm. ndax bi ma ooyee dama ko ne baal ma ñëw. Mhm. dinaa woo ceeb mu ñëw. Mhm. waaw man moom mënumaa ñëw. waaw parce que sama loxo da doon métti. fan yii a mënumaa ah. waaw. a ah, kon gars yi ñaanal leen ko loxo bi taw feex ah. ñoo ngi lay souhaiter nag saison bi bonne chance ah. waaw Adja Adja Egelo are, egelo ama, sole dobe dobe. ya i ngarna Diofior wala ya i ndetna kata saax te o kiino xa andoona paax a ref vraiment tig ka xewa Diofior i ngar mbind den nde maaga baya a tet njoomna wala programme fa fadka i ndetma ta topatooxa in o teexetena topatooxa in kon vraiment i njegee ndafdum Mame Saly ino i laya nuun nuun wa Diofior nu moƴ nu ñaanan moƴ nu ndamit parce que oxu reena win saate of deno ɓara muƴa tun damit to i nge'andamit ne mais ɓaateno parce que mbapat ne ge'na ke garna meen no piir xaye ke ge'na ke fudirna no wiin aussi ande Mame Saly Diofior awe a mbugaan a jega ma den doononga kon wo tamit o moƴu goorgoorloox voilà kem paam koy ten re nuuno a sikaab message fa leŋ rek bug mu lancer parce que ye gariiduma meeke xaye cer ke mi a laaca laacu ƴuf a yiif ke mi a ndet ma goɗna tere njom ne sikaab jomna sikab yafu ndom bajanin pafu ngatamin jomna sikab yafu yankuyin bukarin jomna sikab yafu ablay jayin ibu jayin jomna sikab yafu mbalkayin cheikh ousir jomna sikab yafu gan jofanin bisale yin jol ansu yin jomna sikab yafu matar sengorin karam bajikin fu lakas lakas lakas non ne sikab afoga fo comke andonaye histoire binana bin kon nurawa sikab moƴe gorgorlo jom leke warereke andonaye ka ñifa o langu leke kurena xeya men ko nunawa sikab voilà def yife i lancé a nun te refu ye jom ne ke andona ñowa ñom tv tv ke arbitre ke pur ke fop a mbuga jom ne ah, a bugum ah, a ɓatu nam tig ko nunawa sikab 2024 2025 fe mbéxe yëpp doom naa baatu fa kenn ñu ne daa dul jërëjëf